صلاة لسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع العبس والسفر fukki fan ak weeru safar di bis bi nga xamee ni Serigne Touba ci la dëgmal loolee ni duppee nattu wi sëriñ Fallou Galass si la lan ci àndal ci bëyitu bis bi. bëyitu bis bi nag tey jii. mooy li tax sëñ bi dem ci géej gi sëñ bi dafa waxal boppam ne sababu xaybatiya yow mi nga xam ne yaay laaj lan moo sabab ma ma nangoo bàyyi sama njaboot bàyyi sama réew bàyyi samay dëkk dem ci géej gi dégguñ ma wax la lan moo waral muy bayit bu doy waar ana lan la ci sëriñ Tuubaa na ma wax foofu sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha araada an anaala minhu jaaha dafa wax ne sababu sama dem ci géej gi tukki bi yàlla moo bëgg ma am wala man maa bëgg am ci yàlla lu mu ci nekk mën naa nekk yàlla moo ma moo moo am lu mu bëgg ma amee ko wala man ma am lu ma bëgg amee ci yàlla muy dara joo xam ne kenn mësu koo am nga xam ne benn bu yàlla bëggee sëñ Tuubaa am daraja ju mus bu kenn mus sa am da koy teg natt bu mu teg mus sa teg kenn bu sëñ Tuubaa bëggee am ci yàlla daraja ju kenn musta am day nangoo tegoo natt boo xam ne mësuñu ko teg kenn moo tax euh, sëriñ bi faw ngay delluwaat ci am mbindam soo ko xam ak jubloom ndax ku naqaree dégg ay waxam la waaye fu mu jëm fu ne wax na ko moom wut li muy wax day leer danaan la bi nangam di bëgg am nangam moo tax ma ma di ko def ba ma ko defee ba noppi nangam laa ci tële waaye moom waxal na boppam képp koo dégg muy wax ci tukki bi ak nu mu ko man a waxee ak nu mu ko traduire rek li sëñ bi waxal boppam moo gën a leer man daal sababu sama dem ci géej gi mooy dara joo xam ne kenn mësu koo am laa am yéene yi jële ko ci loolu kon yaakaar naa ne suñu déggee dëgg dëgg sëriñ bi lum la waxaat ne am naa ko ci yàlla da nga xam ne engagement ba mu jëloon ca suba teel ba muy xëy loolu la doon wuti nit ki nag li muy wuti ca daj ci bakkanam alaa kulli xaal borom dana ko ci defal ndimbalam ndax yàlla neena euh ku taxaw ci ab buntu te du ko fëgg te taa tëj noppi du ñak nga dégg ku la ubbil serigne touba buntu yàlla bi la taxawon diko fëgg ak nim ko wara a ba yàlla ubbil ko boppam nak jox ko dara jo xamne ne mosu koo jox ku yàlla bi ku ma sa bind motax tax mu waxal na illa yaxaaba ma lam yakun wala yakunu abadan li yàlla tek na ci sama loxo lo xamne mosu koo teg ci benn loxo bu mu mas a bind kon ak lu ko ko may mooy engagement sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha daraja jooju nga xam ne moom la doon it fa yàlla moom la ko yàlla jox nag ba daraja jooju daj daj kapp àdduna te bis bu yàlla sàkk muy gën di kawe di gën di màgg di gën di yokku te ki ko liggéeyoon tegatoo ko bët tegatoo ay doomam bët ay sëtama fi nekk ak ay taalibeem waaye fu ñu mën a nekk rek darajaam jooju moom day gën di dolli ko te duñ xam lan moo koy dolli lu dut na yàlla mi nga xam ne moom la signé loon comprend bayitu bis bi ba ëllëg ak jàmm ci Dakar ak Touba salaatu حماني على ماني ما سوى السفر